asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk Sénégal mbokki judi, yi mbokk taalibe ñi ngi leen di nuyu di leen siyaara ñu fasiyé dik ak yenté nak ci waxtaan wu am solo wo xamné atuman sambu moko def wa sahida saahidun min ahliha ñi nga xamné ñoy jëm doon ay wahabiyoon tuddoon nañ ko ñu tuddoon ay mutawahiboon nek ci réew mi yàgg nañ leen wax na ñom dañ leen di financer ñuy jàllale seen mission di jàllale mission yi nga xam ne moo bàyyee bitim réew dañ leen xaalis ñuy dal ci kaw tasuuf di dal ci kaw nit di ne ñu wax leen ko Atoumane Samb mii nag lii moo ko waxal boppam comme bu ko ñun xeex bi ñuy def dañ ko def saaxir ak baatin moom jàpp nañ ko moom mu waxal boppam lii la waxal boppam moom Atoumane Samb moo ko wax kenn sexalu ko suukar déglu leen Atoumane Samb. <laughs> waaw gars yi day macha ñoom dinañ jot ay financement mais man euh, daanaa am financement tabaski rek. mutterraske dall'anna ay benn xaw ma nuñ koy tuddee benn xëy a boo xamante ni kafaalatul ay taam moo ko taxoon a jóg am na jamono man maa yoroon seen i tawsiatul adaax yi man lañ ko taklifoon mooy xarit tabaski yi xarit tabaski lañ ko dégg maanaam am na daal ay taxe yoo xamante ni xam naa déggoowuñ ci woon ak Abdoulaye Wade jamono yooyu ba tax na xëy na boobu tojoon na waaw fi mu toll nii moom bu dul weeru koor masaaxi ñooñu ëpp li ñuy jot financement bi wax sëriñ si la ci jublu <laughs> kon mi ngi noonu ñi ngi leen di nuyu leen wax ne ñoom dañ leen di financé ko moom mu waxal boppam lii la waxal boppam moom moo ko wax kenn ko suukar déglu leen Atoumane Samb. waaw gars yi day Bachar yi ñoom dinañ jot ay financement mais man daanaa am financement tabaski rek tabaski daal am naa ay benn xaw ma nu ñu koy tuddee benn xëy a boo xamante ni kafaalatul ay taam moo ko taxoon a jóg. kafaalatul ay taam mooy ñi war ñi war a yor wàllu jirim yi. tawsiatul adaaxi man lañ ko taklifoon. jamono yi moom def na defe naa juróom benni at chaque année daa nañ ma gën sax lu bëree bëri ñoo jënd ay madax yi di ko tawsiya ci ay taam yi jamono moom daana jënd xaafinag yu bëree bëri mais dañoo mujj defe naa am muskil ak euh, maanaam am na daal ay taxes yoo xamante ni xam naa déggoowuñ ci woon ak Abdoulaye Wade jamono yooyu ba tax na xëy na boobu tëjoon na waaw fi mu toll nii moom bu dul weeru koor masaayix yi ëpp li ñuy jël financement sama classe bi moom masaayix yi mi ngi jub mooy sëriñ su mag si ci ibaadu rahmaani ak wahabiste yi ñoom amet loo xaliloo ñoom ñooy yi ne bu dul weeru koor ñoom ñoo ay financement bu dee weeru koor nag wala tabaski moom moom nee day noos ci affaire ndax moom lañ dénkoon wàllu ñu yor girim yi ñu deen séddu ay xale tabaski mu di ci lekk di noos waaye ne bu dul weeru koor moom masaayix yi ñoom xaliloo am ametloo ak ñu ngand daan yooyu nga xam ne ñooy ñooy ñoo ne ci bopp yi ñoom ñëpp financement yi mag yi ñu jot kooku mooy Atoumane Samb waxtu wu nekk wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu